26 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1057 tests réalisés, 121 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,4%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 79 cas contacts suivis par nos services, 15 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne, 27 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Diourbel 3 cas, Fatick 3 cas, Kaolack 3 cas, Guédiawaye 2 cas, Liberté 6 cas. Touba 2 cas Dakar Plateau 2 cas Parcelles Assainies 1 cas Mbao 1 cas Yoff 1 cas Pikine 1 cas Mariste 1 cas Tivaouane 1 cas Mermoz 1 cas Khombol 1 cas Sicap Baobab 1 cas et enfin Joal 1 cas 31 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce jeudi 25 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 6354 cas ont été déclarés positifs, dont 4193 guéris, 98 décédés et donc 2062 sous traitement. Le ministère de la Santé de l'Action sociale continue d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tey bésu àjjuma ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin 2020 ministère bi gàlloo wërgu-yaramu askan wi ak action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaja lim ci junni ak juróom fukk ak juróom ñaari test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk benn ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk juróom-ñeent yi di ay cas contact fukk juróom yi di ay cas importé ñaar fukk juróom-ñaar yi di ay cas communautaire ñu gis leen ci Diourbel ñett Fatick ñett Kaolack ñett ñaar ci Géejawaay dix ñaar ci Touba ñaar ci Dakar Plateau benn ci Parcelles Assainies benn ci Mbao benn ci Yoff benn ci Pikine benn ci Mariste benn ci Tivaouane benn ci Mermoz benn ci Xombol benn ci Sicap Baobab ak benn ci Joal fanweer ak benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation yi ci bésu démb ñeenti malade ñàkk nañ seen bakken ci feebar bi ñuy wax coronavirus ci suñu structure de santé yi ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dale ko ci kaabu njëkk ba senegal waññi na juróom benn junni ak ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeenti kaa positif ñeenti junni ak téeméer ak juróom-ñeent ak ñett ñoo ci wër juróom ñàkk ci seen bakken mu des ñaari junni ak juróom benn fukk ak ñaar ci suñu hôpitaux yi ñu leen di traité ministère bi gàlloo wërgu yaramu askan wi ak action sociale mu ngi dellu di ñaax askan wi ñu gëna a sàmmanteeg tegtal yi nga xam ne moom lañuy joxe bés bu nekk maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam